utal leen formation boo xam ne nii danañ mën a defar savon ak teinture ak eau de ndax xam nga loolu jug ñoom buñ ko mënee ku mën a defaral sa bopp da nga dem jaayi ca marché bu indi sa kër ndax jamono dafa metti mhm. maa ngi lay ñaan nga dimbale ma nga dimbale ñu te yàlla tax nga fayal ñu koo xam ne dana mën a ñëw fii ci Ngolomit formé suñ jigéen ñii ñu mën a def savon teinture ak eau de maa ngi la koy ñaan maa ngi lay ñaan xale yi itam nee dañoo bëgg a formé ab association nga dimbale leen tegle ci yoon may leen lu ñu mën a defaree ay këyit yi li ñu ma wax rek laa lay wax te loolu man nga ko nga jàppale leen loolu hmm. te itam ñu ngi lay ñaan aussi sëriñ daara yi fi nag fii ñetti daaraa fi nekk li fi nekk ëpp na 1000 taalibe te yàlla dafa wax ci alquran ne maa indakum yan fadu wa maa indallaahi baaxi ñun ñëpp li nekk ñun day jeex hmm. bis dana ñëw ñun ñëpp lu ñu nekk ñun dana dana jeex waaye li ngay jiital ci sa bàmmeel fab dem fab lampe solaire def ko ci samp daara yi xëy di ci jàng alquran ndax yàlla suñu borom nee na ëllëg bu doontu na xale yi tiim di jàng baasin ba ba tey far naa far naa dendi kon ñu ngi la koy ñaan boo fi ñëwatee da ànd ak xale yi ñu wan daara yi alquran yi nekk yëpp nga may leen ay lampe solaire pour ñu mën a jàng loolu ñu ngi la koy ñaan sayer fii ci Ngolemit démb def nañ ci benn waxtaan ci ci ci ci ci ci ci benn këru sëriñ daf na dafa bëgg Jurbel fii dex bi ñu ñu dundalaat ko pour ñu ñu mën a bay mbayam noonu mba ma man man mën a napp jën fii ci Ngolemit boo dawee ni même pas 200 mètres même pas 200 mètres ndox mi nga xam ne mooy taw mi ngi fii bari bay bëgg a dee bu fekkoon ne am nañ koo xam ne nii bu am expérience jiite jiite jiite dëkk bi comme yow ndox mii mën nañ ko def loo xam ne Ngolemit yëpp ci la ñuy liggéey ndax wax nañ ne ma ñëpp dañ daan def mbayam noor ñëpp dafi jënd salade dafi jënd lépp dafi koy ñaan bu la yàlla joxee maire Diourbel nga defee lu ñu fii ndax suñ suñ mbokk yi mën cee liggéey ndax loolu c'est très important ndax am réew développement rek développement am réew bay rek moo ko mën a moo ko mën a dundal te suñ maam yi bari dañuy xëy dem marché yi jaay ay lëjum te ndox mi yëpp mi ngi fii ci base fii ñu la koy ñaan te itam Sayer Diop fii fii kamb yaa ngi dox jëm si si suñ kii boo fi ñëwee dinañ la ko wan ñun lay ñaan ak xam-xam bi nga am nga def loo xam ne danañ mën a arrêté kamb yi mab bu jëm si si ñun ñu ngi la koy ñaan. xale yi nag ñii xale yi góor yi liñ la wax moom la ñuy def boo leen jàppalee te man xam naa ci yow dëggu doo wax loo mënut waaye loo mën dag leen ko jàppale. kon jàppale leen jàppale xale yi jàppale suñ jigéen ñi boo ko defee amul rëccu buñ la fayut yàlla fay la. ndax yàlla ku def ci moom ci jaamam ñi fukk ndax yàlla dañ koy jaamu ci jaamam ñi kon nag ñi lay ñaan loolu ñi ngi leen di sant di leen gën a bu mu ci juumee ngeen jégal ñu te itam incha allahu rabbi incha allahu rabbi dana la ñaanal te musuñ doo musuñ cee jóg di la ñaanal ndax boole nañ ñëw yow ci biir boole na ñëw ci biti ndax ku ñu ànd yow ñun xool nañ la ndax li am solo mooy nit ku tabe nit ku baax nit ku yaru te ñii nga àndal ñëpp nit ku baax lañ. kon nag ñu ngi lay ñaan ci ngóli mi nga daj ak jàmm dañuñ fi liggéey ba nga am base boo xam ne fii mosoo ko am fe ndax ñu prise de contact la dañ fi liggéey ba nga am base boo xam ne mosoo ko am waaye nga jàppale leen waa Thierno Kandji asalaamaaleykum waa Ngolomit maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen euh, sant di leen gërëm ci accueil bi ngeen ñu defal tey waaye di beral nuyoo rek El Hadj Ale Lom muy euh, suñu camarade ndaxte politique terme boobu moo ci gën a approprié di suñu sëriñ di suñu xarit di suñu wóllëre bu tax gisee nag ma koy wax El Hadj yàlla dafa def ñu daje Makka 2014 kon sama seexu Makka la te yaakaar naa Makka la njëkk a waxante waxu politique te kóllëre ku koy fas. foofu moo cay last comme ni ko xale yi di wax mbir mi di dox di dox di dox ba agsi fii tey kon ab tënk la yaakaar naa ca kanam la jëm kon Ali ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la waxal nit nii eh, wax dëgg yàlla dey gor moo mat àndal ndaxte li nga fi wax gor moo ko lal ngor googu nag dama la ciy sant di la ci gërëm ci sama tur waaye ci turu Aminata Tall bi nga ko waxee nga xam ni man maay ay tànkam maay ay bëtam maay ay loxoom tey kon bu ngeen seqee teraanga mu dem ba fi mu toll nga gën a laxasaayu am sa base politique ndànk seen di fa liggéey lomeen nga ni nit bala ngay nekk gor xëy na ku nekk ci li mu soxla yëpp wër ko sax kooku soxlawul jàppale waaye tey nga ni man dama yam ci naq seen damay ñëw ba biir Diourbel Thierno Kandji Ngolomit ma samp fi base sampal ko sayer sampal ko Aminata Tall looy wooy wane ni kóllëre bi nga bi nga wax sa diggante ak Aminata Tall lu dëgg la ma lay sant turam parce que bu ma la santee mu mel na ni sant na la loolu mooy gor politique lu noble la politique lu rafet la tey dafa am ku may recevoir mu ni moom dafa ragal a dugg ci politique ndaxte day bañ a changer day bañ a mel ni gars yi di mel ma ni ko lenn de dinaa la ko wax képp ku politique jël ngorom boo demee ba muy départ daa amutoon ngor politique ku mu dindi ngorom xamal ni ca départ ba yoru ndaxte gor dëgg dëgg dëgg lépp lu muy ànd ak yawe dina la ko jox ba mu des ngoram kon politique mënta dind benn euh, ngor ci gor gor moom gor lay doon ba dee ba may dee politique dara gënu ko rafet dara gënu ko noble dara gënu ko yàgg yonent bi da daan politique li tax julli di ñu naan leen bu ngeen jullee bu ngeen di dem jaar leen nii bu ngeen di dëpp jaar leen nële muy benn waaye ñu koy doublé loolu politique la vision la kon lépp politique la politique nag moo ñu dajale fii di santit ah ñi ma àndal ñëpp ndax yéen ñëpp ay gor ngeen waaye ma ci aussi cité waat ale ba ma ko mayee sa bis la waaye dogo mi kuy wër góor aussi mën nga ko jàpp ndax li tax ma li tax ma cité ko dafay gor te xay na ci ni mu féetewoo ak cër ba muy féetewoo ak la muy wax di animé ak fam fañ koy féetale bu ko neexoon mu doxale neneen waaye faalewul ànd naag ñun ñu yor ànd naag ñun jox nañ ko ànd naag ñun joxuñu ko fu ñu jóge mi ngi ci suñu ginnaaw ndax kan ndax Aminta Tall dama laa cité rek waaye wax dëgg yàlla ñii ñu àndal ñëpp ay gor lañ waaye nag bu ma la cité yóbbaale naa gor yëpp waaw ndaxte nag bu la neexoon nga defee neneen kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant euh, aussi véritablement jeunes yi ñu fi accueillir jeunesse bi waaye yéen sax bala may yéen ci yéen damay wax ci ci ci ci femmes yi jigéen ñi ñoom ñooy lépp ndaxte ñoo yor kër yi. jigéen ñi ñooy jàmbaar yi ndaxte nag ah, ñun ñëpp ay doomu Jurbel lañ comme yéen dañoo judd ci même condition yi ngeen juddoo gis suñu yaay yi nekk ay jàmbaar nekk ay góor yu set wecc di daan seen doole guddeeg bëccëg ngir sàmm seen ngor kon nii ku leen jàmba jàppale yàlla nga koy defal te ku leen jàppale rek yàlla jàppale la kon nag jigéen ñi ah man de pare naa pour jàppale leen pare naa pour ànd ak yéen. ci lépp lu ma mën du yàgg lu ma mënut it dinaa ko ànd ak yéen wuti ko buñ ko amee indi ko fii kon allez doléance bi ma wax ci jigéen ñi muy formation bi encadrement bi incha allahu bu ñu fi jógee danañ ci taxaw ba loolu sotti ci ni mu gën a gaawee bu soobee yàlla te bu weesoo loolu it lépp luy seen itte di seen soxla ci lu ñu mën du yàgg ci ñun. ñun nag du ñu politiquer comme gars yi ni ñuy politiquer di leen dig te liñ leen di dig naruñu ko lu ñu leen wax rek nar nañ koo def noonu la ñuy politiquer waaw. nag ànd la rek dem wuti su ngeen amee indi mu nekk njariñu population bi ku wax yaay yi nag xam ni seen préoccupation majeure weesuwul lu dul xale yi seen doom yi parce que yaay joo gis muy sonn doom ji rek moo tax. kon kenn mënul fàtte ndaw ñi kenn mënul fàtte jeunesse bi maa ngi leen di xamal ni yéen moom li ñuy sonn pour yéen la ndaxte yéen a koy jariñoo ëllëg damay joxe benn exemple wax naa ko fële léegi eh, stade Ely Manel Fall bii jeunes yëpp laa ko defaral li éclairage bi moo ko defaree c'est pour toute la jeunesse yaakaar naa toog ngeen fi ay ati at kenn mënta football nawetaan mat na 10 ans bu ñu waxantee dëgg éclairage bu normal kenn xamul kañ la ko stade bi gëj a am mais loolu projet structurant la ci xam-xam lañ ko teg bu leer nañ. parce que nag bu ñu ko doon def comme gars yi ni ñu ko daan defee pile bu lakk nga ñëw taqale ay fil bi fil bi tàkk. loolu suñu programme ngeen jàppale ñu bañ jox ñu dëkk bi bu soobee yàlla yaakaar naa ni loolu moom lu ngeen di fàtte lay doon. <laughs>